xam nga di business di gën a employ ndawi Gambian si tamit because li encouragement la uh, ci youth si waaw si Linguère li nga wax am na solo trop yaay Black Queen damay dellusiwaat di nuyu suma doomu de suma broda es daam ci Bakau borom ciseau création borom ciseau bu rafet boobu nga xamante lu mu ñëw rek loolu piix la li ngeen wax noonu ci Abu Saaxo moom dëgg la man am naa chance mit ko am naa chance dem ba ci këram xool li muy liggéey yaakaar naa ne livestock ci nekk ci Gambie Greater Banjul area benn bés dem nañ too dem seeti leen Tujereng Tanjee Brusubi Bakaw et cetera kon du nuyu tamit seen président suma xarit su ma ndey IJ. IJ maa ngi lay nuyu bu baax. IJ Diallo nuyu nañ la nuyu Diallo jéeri ku baax koo xamante ne lii daf ko bëgg xam nga da nekk ndaw bëgg animal. ñeen dañoo nekk ndaw bëgg xaar comme bu leen dalee suñu màggee rek dañ koy wane te léegi mbir mi nekk na loo xamante ne dafa international déggaloo ci biir vidéo bi sax mu naan doom ji bul wori xar bi mu ngay dem bi ko dafa war a dem Sénégal di ko nax di parce que xale bi bëggul xar mi dem doom ji bëggul xar mi dem ndax miin ñuy xar mi ak toppatoo yu am ci xar mi ñii dañoo jël ay millions def ko ci jur yi la man lu ma lu ma leer laa ci xam bi ko soof dem naa ñoom seen gétte yi gétte yi nekk fii yëpp ñi nga xamante ñooy gétte yi am doole yi ci Gambia IJ jiite leen abu saaxu mi ci la bokk Sakho Kam maa ngi lay bu brodom ku baax keroog bañ demee këram amul teraanga bu ñu teralu dëgg la war ñu géttam gi macha allah soo gisee géttam yow sa bopp da ngay bëgg a def lii ci saas waaye loolu tëb rek dafa ko tëb dafa ko de dafa am fu mu dooree am vision teg ko te ni ko tegee wax na ko damaa dem génn bitim réew xoslu am dara xamne amu valeur vraiment suma rew ma wat inte bu a invest gis ne fii nag laa bëggee ndaxte man ko beug xar la mu dem am ay ay ladum ay balé balé xar nice ma sha allah ñom nak bari nañ def nañ association bo xamanteni suma waay di nga dem fu bari ah te bo dem te oma yo xam nga ñoo andol ba ngay dem ba ñu dem ñoo andol dem nañ fi tanjé fofu toy tujee rek waxi nopi bourse bi moom fu ne lañ dugal. ay gétt gétt ngay gis. bi yoon sooy dem nga dama bàyyi. boo fa demee dangay ngay surprise. Mm-hmm. danga naan ni li Sénégal laa ko gis amatul Gambia. Mm-hmm. waaye effet ñax mi xar ñu dundee sax ñii dañoo tray ooda ko di ko fi béy. pour xar am na ñuy lekk. Mm-hmm. macha allah président Adama Barrow am na xar mu rafet buñ ko tuddee président si le le président. Euh, Saa Daawda Jawara. am na xar muñ ko tuddee. ndeysaan yes di ci biir lifin bi sax am na xar mu lay won ne Ijee la. Uh-huh. dëggoo mu ci biir commune mu naan Ijee. Uh-huh. mooy Ibrahima Diallo bi nga xam ne mu président ni life stocks. Uh-huh. nit ku baax nit ku down to earth. la nit koo xam ne ndaw la xale la. waaye gëm na li muy def te jubal na te jub na. te ñii ko óolu ba nga xam ne moom lañ ko jiital ñoo Abdou Sakho mii jiital ko. gor lañ ndaxte ku ne mënoon ngaa mbir mi. waaye dañ ko doyloo. te yaakaar tasul. IJ Diallo nuyu naa la Mr Sow keep it up because of yow ku baax nga sa jabar nag di la jàppale soxnaam su baax di ko jàppale boo demee loolu njëkk gis gis Simaaylam comme ñi ko ñi koy liggéeyal sax xam ne ni ku ñuy liggéey nit ku baax la kon lii dañuy encourage Gambien ñu bëri am xaalis dugg leen ci bu ko defee jur gu rafet gu baax am ci réew mi te sakkan ci lool kenn duñu ci ëppale te kenn duñu ci raw kon nag uh, buur géwél uh, macha allah kàddu yi rafet nañ uh, ñoo ko déggandoo loolu mm-hmm. lañ leen amaloon tey mm-hmm. waaye nag gannaaw loolu dañuy doxantu ci li nga xamante ne nii moom mooy Facebook bi dafa mel ni ki teyoo tey ah jaaruma fa waaye xawat <laughs> non tey la da nga xaw a lifin moo tax. waaw su ko bi moo ma nekk di disturb too much definitely loolu waral tayal bi nii waaye ñu ngi nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy topp ci face bi. waaw Sdam Creation. yow moom su ma lay wax damay sawar lii daal dafa garaaw. ndeysaan es daal. <laughs> ah bu damaa ñëw fii nag tey nag sama lingeer dafa am xam nga xëy bu ndaw bu ko distop. billaay barke yàlla moom mooy loolu tey daal man maa fi sawar. moo tax dama leen gën a buggal sawar ndax ñu yëngu. waaye nuyu leen wax leen yow Wilane moo di ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel ñaanal la yàlla di ko sàkku ci yow mbégte kontaante eh, eh, vraiment toujours rek yaa ngi bàyyi lépp ñëw topp fees bi euh, ànd ak ñun mhm. euh, borom yaay ju baax ji maa ngi lay bu baax a baax a baax bàyyi bébé taala ah séeri lingeer dëgg neexul tamit waaw di <laughs> euh, nuyu ki nga xamante moom mooy Babou Ndiaye. Ah, mu ne baabu Ndiaye mu ngi kontaan ci ñun wax dëgg yàlla mu ne greetings to you all. Mhm. Babou Ndiaye nuyu nañ la. am mbégte kontaan ci yow mhm. ah di nuyu ki nga xamante ne nii moom mooy broda Sanasar di waa ni jaamani mhm. ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla waaye di ko sàkku ci moom kazalika ñu ngi nuyu ki nga xamante ne mooy Fatuma Wadda mhm. borom ndekkilu riis li ñu ngi koy nuyu bu baax a waa gis nga di nuyu képp koo xamante ne nii waa Sahel ñu ngi lay dalal ci seen plateau mhm. ñun xam nañ ne da ngeen ñuy follow waaye nag bu ñu leen buggee lim dañuy duñ matal loolu moo tax dañuy maasal affaire bi. Mhm. Ah, di leen xamal rek ne ñu ngi leen nuyu. waaw Moussa Diassi Lamine Diassi. ah mu ngi noonu ñoom Adam Diallo mi jógee démb ñun ñëpp waaw kii naka sax bàyyi. Adam Diallo Diallo ay waay tur bu neex bi. honorable honorable ban la si. député Goxono. Basse. ah Thiam. moo baax borom loxo bu taale bi billaay. ah ñu ngi lay nuyu di la ah, dëgg neexul tamit. waaw Linguère ak Buur Gueweul definitely um, it is uh, so interesting to see a this noble platform with um, you people. because you are doing amazingly great um, uh, mbokki déglukat yi our hmm. wonderful viewers out there this is definitely déglu olof de déglu ma ne ngaan moo ko seetaankat yi ok déglukat nekk fi ne fii di rajo télé la waaw ok waaw gars dama déglu tamit kuy seetaan xam nga déglu luñ nekk di wax nga mun ko xoolal loo déglu ma buur mhm. xoolal ca yàlla téye ko ah